هب شقي تجاني حرق قلبي في عمري دوما لشيق قباء هب شيق تجاني حرق قلبي في عمري دوما لشيق قباء هب شيقي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه ñu ñëwaat ci Mawlana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu ci xatmul wilaayati dégg nga xam ne moom mooy xaatimatul wilaayati muhammadiya moom mooy xalifa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu nag naka la mën a nekkee boo ko bëggee dégg da xool ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa yónni yonent yu bari waaye day gis ne euh, li bàyyi wax ne kullama fi rusli Eh, eh, eh, muhammadun dégg nga kullamaatu rusli fiihi tuubi loolu la bàyyi wax mu ne muhammad mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nekkoon ci yonent yi ci yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam ci lañ ko dëxëy yonent bi sallallahu alayhi moo denc mboolem wala moo yor mboolem liñ dencoon ci ci ci li nekkoon ci yonent yi loolu nag moo indi ñu tànn yonent yi ci biir cent vingt-quatre mille yi ànd ak yonent yi ëpp nañ loolu yonent yi ëpp nañ waaye cent vingt quatre mille Muhammad ci biir cent vingt quatre mille yooyu ñu tànn ci trois cent treize ci biir trois cent treize ñu tànn ci vingt cinq yoo xam ne in alxuraan indi na leen waaye ci biir vingt cinq yooyu ñu tànn ci cinq ñooñu leen tuddee ulul azmi mina rusul ulul azmi mina rusul itam dégg nga mooy nuuxin ibrahim moussa isa muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga gis ne mboolem bi nekk ci ñeenti ñi ñëpp ñu ngi ko jël dugal ko ci biir yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñu tuddee ko xaatimatu nubuwa mooy ki tëj buntu nubuwa parce que mbooleem eh, secret mbooleem sharaai eh, eh, loi kii divine yu jógewoon ci yàlla wàcc ci yonent yi day gis ne loolu mu ngi wàcc ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy ki tëj buntu boobu moom moo tax mu ne fa laa nabiyya ba'di beneen yonent dootu ñëwaat sama ginnaaw dégg sharia bi mu indi dootoo dégg ci ba pencab yàlla beneen sharia bu ñëwaat ci ginnaaw moom yonent bi sallallahu alayhi wa kon nga gis ne yonent bi mooy xaatimatu nubuwa ni mu amee xatmu nubuwa dégg nga ku nar a doon yonent bi itam noonu lay ànd noonu lay nekkee xatmul wilayatil muhammadiya mooy ki nga xamante ne moom moo tëj buntu dégg nga wilayatu muhammadiya te kooku dégg nga kii borom xam-xam yëpp dajaloon doon ko jàngale mooy moo a Seydi Ibn Arabi Haatimi junjoon na ko dégg nga parce que waxoon na ne dañu ma di wër kan la dañu ma di wër kan la bañ woon ma ne mu ngi tudd Ahmad mu ngi daagu ci mbedd Fass yi waaye fu yàlla di nattoo ay noonu la radiyallahu anhu kon nga gis ne moo dana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu mooy borom xaatimatu wilaayat Muhammadiyya moo tax bàyyi na ko xatmul wilaaya sultaanul wilaaya lu tax sultaanul wilaaya mboolem eh, eh, ñi nekkoon. Eh, ay ay ay waarisu muhammad yu na mboolem ñi nekkoon waarisu leneen maanaam ñi doon mboolem yonent yi parce que di ko jàngale hadis yonent yonent moo wax ne al ulama bi anbiya borom xam-xam yi ñoo doon yonent yi kon nga gis ne borom xam-xam yi ñooy wali yàlla yi feeñ ginnaaw yonent yi kon ñoom ñoo doon eh, eh, yonent yi wali bu nekk ndiggoom mu ci ndiggu maqaamaab yonent waaye day gis ne wali yu yëpp bu ñu leen dajalee am na comme ni Muhammad sutee ko wala wali yàlla yi kooku nag sut koo wali yàlla yooyu dégg euh, mu kooku mooy euh, xaatimatu wilaatu Muhammad ya ndax mooy ki doon Muhammad mi nga xamante ne moom sut mbooleem dégg yonantu yi nga xamante ne yaa ngi dégg yàlla mus na leen yónni sallallahu alayhi wa sallam yonantu boobu nag euh, wala wali boobu te mooy mooy mooy mooy Cheikh Tidiane ni yonent yi nekkoon nekkee woon ci ron yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te loolu taarix jàngale na ko ci yonent boobu nga a ñaane yonent yi àndoon ak moom dégg julli ca baytul maqdis yi dekki nañ ànd ak moom ci julli bi loolu beneen mbir la yonent yi itam jiitu nañ ko ci asamaan ñu teeru ko foofu itam loolu itam beneen mbir la waaye day gis ne ñoom ñëpp dekki nañ bi yonent di rañaane waaye ñoom ñëpp yonent seen sang ñu ànd moom noonu itam la wëli yàlla yi di àndee ak ki nga xam ne moo doon yonent bi mu la xam ci kooku mooy Mawlana Cheikh Tidiane moo tax ñu ne la jabalu Arafa ba mu jot xaatimatu wilaayat Muhammadiya foofu mboolem wëli yàlla yi mboolem yonent ñëw nañ foofu nag la ko yonent bi doon wax ne ruux wa ruuxahu dégg nga mu ne fa ashara sababi wa wustaahu mu ne sama roxo ak wo yonenti mo ngi melni ñaari baram yi fa ashara ila sababati mu joxoñ yonenti mo ko wax Cheikh Tidiane nako sama roxo bi moy bi moy baram mu joxoñ ñekkaay bi moy feñ way sama roxo waye sa roxo bi moy baram bi ci digg bi yow Cheikh Tidiane radiyallahu anhu da nga ci jange dafa melni ni bi ci digg bi mo sut bi ni fekk déedéet ni Abdul jilani Jeylaani radiyallahu anhu waxoon na ne nihayatu aqdamul anbiya bidayatu aqdamul awliya fi wali yalla yem foofu la manage fi yonent yi yem yonent yi fi ñu yem wali yàlla yi fa lañ commencé ñoom ñoom ñoom ñu jëm ko kon wali yàlla ñu continuer mission wu yonent yi kon kan moo continuer mission wu yonent yi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy Mawlana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu moo tax Cheikh Tidiane mu ne ruuxawu ruuxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tamuddu jamiil anbiyaa yi wal mursaliin ruuxu yonent bi moo tëbbu mboolem anbiyaa yi ak mursaliin yi dégg nga mu ne waaye wa ruuxi man sama wax man Cheikh Tidiane te muddu jamiil awliyaa wal axtaabi wal aarifiin man nag sama waxu man Cheikh Tidiane yi mooy tëggu mbooleem wali yàlla yi dégg nga waaye mooy tëggu mbooleem xutbu yi waaye mooy tëggu itam mbooleem aarifuna billaahi aarifu billaahi dégg nga mooy ñi nga xamante ne ginnaaw bañ nekkee saalik yaa ngi dégg ñu jóg ko foofu noonu dégg nga dem ba nekk ay ay ay ay ay waasil dégg nga ginnaaw bi ñu ko foofu noonu dégg nga ñu nekk ay aarif aarifu na billaahi yi mooy ñi nga xamante ne fannaaw nañ ci yàlla benn yoon dégg nga ci zaatoom bi ñu fannaaw ci sifa ñaari yoon wala ñetti yoon yaa ngi dégg demet comme ni ko Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu waxee ànd ak Cheikh Tidiane wax na ne laysa al aarifu alladi yajuulu fi l akwaani wa innama al aarifu alladi yastaghriqu fi anwaari l kaamili dégg nga Cheikh Tidiane mu ne aarifu billaahi du kii wëndeelu ci kawnu gi du kooku mooy aarifu billaahi mu ne aarifu billaahi mooy ki nga xamante ne moom mooy ki lap ci leer ak mat gi leer ak mat gi Cheikh Tidiane mu ne kooku mooy dëgg-dëgg aarif boo demee ci Seydou Mouhamad bun Abi Nasra mu ngi wax ne dëgg-dëgg aarif mu ne mooy koo xam ne fi nga toog nga yëg mboolem li xew ci àddina bi mu ne mu ngi mel ni gàtt buñ sidd mu ne gàtt buñ ko siddee fekk mu lépp lu dal ci yaramam da ko yëg parce que yaramam bi amatu der bu ko couvrir yàpp kese la lu ci dal ci koom da ko yëg mu ne aarif billahi itam noonu la mel ci àddina bi képp ko aarif dëgg lépp lu yëg ci li li xew ci àddina bi da nga koy yëg loolu moo tax mu ne al aarifu dëgg alladi yastaghriqu da nga fi anwaaril kaamil yi mooy ki nga xam ne dafa lap ci leer yu mag yi kooku mooy dëgg-dëgg aarifu billahi su ko defee nga gis ni Cheikh Tidiane nekkee nga mu أخطاب والعارفين كتبوا مولا قدوا يعرفون بالله سوف نفعل كونتنا برن يون إن شاء الله بيغا تي سلطان الولاية وآي تي باب للولاية تيتم بيغا اللهم صل على سيدنا محمد أكتبه يوم مقدار عزيز وسيفي بين أندادي وغرور فشيخي قلم ميواني فتنفى من وراني وألو من وراني